ici Touba euh, am ak qualité de président du comité régional de suivi des épidémies parce que euh, ni ñu ko xamee euh, Sénégal dafa am comité national de lutte contre les épidémies bi nga xam ne le chef de l'État le président république moo ko jiite noonu la amee ci région yi fii ci région de Diourbel ñu am comité régional de lutte contre les épidémies ñu def réunion du comité à la gouvernance de Diourbel bi ñuy defee réunion boobu jàpp nañu ne dañu war a taxawal benn hôpital bi nga xam ne dañu fay faj ñi nga xam ne euh, épidémie bi feebar bi daf leen laal loolu benn service bu ñaan naan bi nga xam ne mu ngi dépendre ci ministre de la santé benn centre opérationnel des urgences sanitaires loolu lay tekki war na tabax fii hôpital site bi ñu jógee muy héliport foofu lañ demoon xool léegi gis ngeen ko euh, si ndimbalu sëñ Muntaxa euh, boole nañu sëñ Muntaxa xalif général des Mourides ñu ngi koy siyaare bu baax di ko nuyu boole nañu ak kenn ci jëwrinam muy sëñ Abdou Latif Mbàkke mu ngi nii ànd ak ñun mu ñëw teere ñu jàppale ñu ci liggéey boobu dina yebal fii daayira bi ñu ñëw euh, aménager surtout héliport bi dagg garab yi nettoyé ko waaye ICG ñëw ak seen peel dindi lépp nettoyé ko ñun membre du comité régional euh, de lutte contre les épidémies ànd ak monsieur le maire de Touba Abdou Lahad Ka ànd ak aussi le médecin chef de région ñëw jàppale ñu pour ñu mën a la fa war ci loo xam ne dañ ko fa war a def muy defaraat néeg muy defaraat sanitaire yi parce que ay médecins dañu fay nekk muy euh, defar toilette yeeg yépp yoo xam ne nit mën na ko jëfandikoo ak setal bërëb ba ñoom dee ñu ci jàppale ba ci ay ventilateur ba ci sax yi ñu fay def parce que ay médecins ñoo fay ñëw war fa ñëw pour faj nit ñi comme lañ leen di faje hôpital de Fann donc loolu waa cause war nañ démarrer monter hôpital bi ci ay fan néew hôpital boobu dina ta jóge dina ta dañ ko defar fii ci biir cité aéroport bi nga xam ne foofu lañ joge beneen bi mooy armée nationale dañuy ñëw defaraat beneen hôpital ci biir fii résidence sëñ Touba bi bi nga xam ne moom la ñu jàkkaarlool dem nañu fa ànd ak service yëpp ànd ak hydraulique mu war a saytu waru ndox mi ànd ak senelek bi ne dina fa wàcc descente électrique maire Touba aussi ñëwaat ca euh, Abdoulahat Ka ne dina fi yeble ñoo xam ne dañuy ànd ak daayira bi daal di ko nettoyer def ko ci ay camion benn dem tuuri ko daal di setal béréb bi niveler ko ba militaires yi ñëw war a monter seen hôpital correctement loolu médecin chef ki ko fi teewal dina leen wax hôpital boobu lan lañ ci militaires yi jublu mu ngi ni taxaw dañ ko jox kàddu gi dina wax aussi centre bi naka lay demee waa COUS ñu ngi fi aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite hôpital boobu euh, sëriñ bi aussi sëñ euh, xalif général des Mourides euh, dimbali nañu ba neex sëñ Abdou Latif ba waa COUS docteur yi fay nekk yëpp fii lañ leen di jëlee loger ci résidence bi militaires yi aussi médecins yi ñuy àndal ak éléments yi ñuy àndal war a jiite hôpital bi tam si biir résidence bii ngeen jàkkalool ñoom ñëpp fii lañ leen di loger ñu dëkk fi donc fii militaires yi dëkk dina am waaye itam ñi yore hôpital bi ñu war a faje ñi nga xam ne fer bi bi laal la leen fii la ñuy dëkk ci résidence bi donc ci turu chef de l'État ci turu ministre de la santé ci turu gouvernement bi maa ngi remercier sëñ Muntaxa Mbàkke bi nga xam ne jàppale nañu ba nga xam ne docteur yi fi nar a ñëw pour faj si ñi feebar duñu tumuranke benn yoon am nañ saal yu ñuy tëdd yu baax am nañ seen ay saal yu ñuy lekke am nañ ay salon yu ñuy réunion di fa waxtaane mooy li ngeen jàkkalool te xam ne fii hôtel yu bari tey boo ñëwoon lii am fii sax xëj na amul ci hôtel yi loolu nag dañ koy gërëmee xalif général des mourides bi nga xam ne joxe na ci ndigal ne lépp lu ñu soxla nañu ko jox tey woy fajkat yi docteur yi ak ñi nga xam ne dañuy ñëw pour dimbali si malade loolu laa mën a wax ci lu jëm ci ñaari hôpitaux yu nga xam ne war nañ ko fii def li ci des kii nga xam ne moo teewal docteur bi di wérgu di saytu wérgu yaram di leen ko wax beneen bi mooy xam nga comité régional aussi dafay ñaan solliciter partenaires yi du ñu jàppale jàppale nañ ñu barke démb gis ngeen don bi ñu def ñun tam ñu jëlaat si si loolu jàppale famille bi nga xam ne tey dañ leen a confiné ne bu leen dem fen loolu nekk na ci euh, ay ravitaillement buñ leen jox parce que tam dañ leen a toogloo foofu euh, le ministre Mansour Faye bi yore ministre du développement communautaire yéene aussi ceeb une partie ngeen gis fii waaye leneen laa nga Jurbel pour ñu jàppale famille yi nga xam ne dañ leen mettre en quarantaine kon boog gouvernement bi mu ngi ciy dugal loxoom partenaires yi ñu ngi ñuy dugal seen loxo loolu lépp nag jël naa ko tekk ci loxo tey sous bi nga xam ne moo fi nekk gën a jegeñ docteur bi nga xam ne mooy moo leen di surveiller muy médecin chef du district ak médecin chef de région bu ñu paree lii ngeen gis muy ceeb yi muy euh, eau de javel yi muy kit lave-mains yi parce que dañu bëgg itam fépp foo xam ne ay nit dañ fay daje ñu teg fa ay raxasukaay yoo xam ne nit ñi dee ñu seen loxo dina set fu mu toll moo tax ñuy gën indi tey 30 kit lave-mains démarré ko pour fep fu nga xam ne ay nit dañ fay daje nit ñi dafa raxasoo ndax ndox yi dafa war a set loxo yi dafa war a set wecc feebar bi set da cee am loolu bu bari lu muy jee moo tax ñu yëkki lii tey indi ko Euh, jox ko ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo fii si Touba tekk ci loxo autorité administrative yi ñu ngi fi ñu ànd ak docteurs yi bu ko defee yóbbu ko fa nga xam ne foofu la war a dem loolu moo nekkoon suñu teewaay tey waaye daal ngeen xam ne gouvernement bi mu ngi ñuy bàyyi xel partenaires yi ñu ngi ciy jàpp lu ñu ciy jox rek euh, ñu ànd ak ñi nga xam ne ñooy saytu feebar boobu muy médecin chef ak équipe tekk ci loxoom mooy famille yi ñu confiné moo xam les lieux yi nga xam ne dafay recevoir bi public moo xam hôpitaux yi nga xam ne dañu war a samp fii euh, wax naa ñu defal ñu ay devis loo xam ne toilettes yoo xam ne dafa yàqu ñu jox ñu ko ñu jéem a seet koo xam ne mën nañu ko defaral mu dimbali ñu defaral ñu ko ndox mi nga xam ne ñëwul hydraulique ñëw na nee na dina fexe ba béréb yëpp ndox mi àgg fa Senelec dina wàcc courant bi euh, def descente ba nga xam ne hôpitaux hôpital yi ñu war a monter fii courant bi dina wàcc ñu jëfandikoo ni ñu ko war a jëfee ñun daal euh, li ci président santé ñu ngi siy teg suñu tànk ci góorgóorlu ba nga xam ne euh, li ñu dénk mooy surveiller maladie bi jàppale ñii loru jàppale ñi xam ne jàppane nañ aussi mën na leen lor fi ñu leen teg toogloo leen fa ñu gunge leen accompagner leen mu alimentaire am accompagnement social ak psychologique ba nga xam ne kenn du tumuranke loolu daal la ñuy jéem a def loolu la ñuy góorloo def yéen itam way taskatu xabaar yi yéen ci mbir mi ngeen bokk ñoo bokk liggéey bi ngeen xamal population bi ne leen feebar bi mu ngi si Touba feebar baa ngi fii dëgg la ñëw na fi ba ñëpp xam loolu bu ñu ko xamee ba pare ngeen xa fàttali leen ku ci nekk ban taxawaay la war a taxaw maanaam di setal di moytu te fu mu toll di bàyyi xel ne ay loxoom dafa war a set parce que loxo mooy dem ci gémmiñ mooy dem ci bekken te moom mooy jege fi nga xam ne feebar bi mën na fa duggee bu ko defee yéen dama leen wóolu dama leen yaakaar ci li ñuy liggéey parce que fi seen kàddu àgg suñu kàddu àgg àggu fa wala yéen a ko fay àggale ngeen siwal ko ne feebar bi nit ñi dañ ko war a xam ba pare xam ni koy moytoo am ngeen ci rôle bu bari bi ngeen di joué am naa ci yéen yaakaar bu rëy rëy kon boog yàlla bu yàlla tas suma yaakaar